waaw Pape Camara laa tudd euh, président conseil de quartier à Fass Mbao euh, commune Diamaguène Sicap Mbao mhm. Mhm. waaw li ma ko jàngatee mooy kontaan si lool euh, c'est une première si quartier bi lii mi ngi soog a am donc dañuy sant yàlla bañ ko njëkkee organiser ñun ci quartier bi Euh, pour suñuy doom yi mën a dem jàng ji loolu c'est à féliciter di si ñaan yàlla daal vraiment mu yàlla def si ndox mu sedd euh, mu jig ñu vraiment maa ngi ñaanal euh, ñi nga xam ne ñoo ko organisé ak ñun ak sama collaborateur yi ma nekkal ak surtout Dame Ndiaye un frère un ami bi jiite mouvement CDG dëkk si quartier bi um aussi contribuer si bu baax ak man ak ñeneen ak ñeneen donc c'est à saluer loolu. jafe-jafe waaw ñu ngi koy sentir bu baax a baax a baax baax parce que banlieue boo ko waxee rek euh, ñëpp ñàkkuñu nag mais dañuy tànnante te am na si ñoo xam ne seen loxo dalu jotu seen ginnaaw te yàlla daleen di nattu ñu am ay doom yoo xam ne dañuy jàng macha allah mais amuñu moyen pour yóbbu seen doom yi à ñu mën a jàngi moo tax ñun lu si mën rek danañ ko si def pour seen réussite pour ndax loolu mën a wàññeeku chômage bi wàññeeku xale yi mën a am fu ñu dugg seen réussite mooy suñuy ndam ñun parents yi. waaw loolu loolu ñu ngi siy bay waar ñu ngi siy bay waar di waxtaan ak autorités yi nga xam ne ñu ngi si kaw di jéem a xeex loolu parce que suñu sañoon tey ku nekk da ngay toog fii tekki doo dem donc lii sax li ñuy def nii loolu ba tey combat combat boo xam ne day tax tamit euh, ñooñu loolu gën a wàññeeku comme que mënuñu dindi lépp nag dañuy def si dañuy bay suñu waar def si li nga xam ne moo tax xale yi toog ñu gëm leen leen ne bi fi bi ngeen fi tegoo di réussir te li ñu def nii ñii buñ demee tam danañ euh, wax ak seen yeneen morom yoo xam ne danañ leen wax ne leen ñun daal dootu dootuñu demati bëggatuñu dem fii la ñuy toog pour tekki ñun daal ñu ngi xeex loolu di ñaan na comique bi euh, yàlla dimbali ñu waal ba nga xam ne du atteindre yenn niveau yi parce que sinon mi ngi sonal per de famille yi day sonal ñun suñu xëy te euh, bu comique bi demee trop trop trop trop du baax si yenn père de famille baax si njaboot yi waaw. problème euh, yi ba waaw man euh, côté boobu moom pont bi avant ñu koy tabax fexe naa ba rassembler les imams ñu wàccee kaamil ci jàkk ji pour ñaan euh, tale bi yàlla dimbali ñu si ba duñu am ay tolof tolof waaw waaw. Euh, loolu ñu ngi si doon bay suñu waar xeex nañ ko lu yàgg si koñ bi xeex nañ ko lu yàgg di jéem a fexe ba choc yeeg accident yeeg yooyu nga xam ne mooy oto yi ñoo ko indi euh, yàlla dimbal nañ si daal ba du am jafe-jafe comme ni mu koy amee si yenn gox yi. ñu ngi naan yàlla daal ñu ngi naan yàlla daal euh, tali bi xale yi di des def nànk ñun tamit xam nga mënuñu nekk fépp démb choc ba muy am fii ba xale bi di si dee yal na ko yàlla yërëm wu ay param Lol tamit metti nañu lol mais ñun ñi nga xam autorité ñu nek ci koñ bi ñu ngi xex naka lañu wara def pour sauver suñu dom ak tali bi. waaw day parce que fi am pour nga am complètement complètement ci day jafe. mais chaque instant ñu ngi siy wax maa ngi soññu maire ñu ngi siy indi ay làmp ñu ngi taal def taal ay làmp si gox yi mais aussi ñi nga xam ne ñoo dëkk si biir koñ bi euh, très souvent ñi nga dëkkal seeni doom ñooy def yenn yi mais ñu ngi ñaan yàlla nag ñoom ñu aussi ñu yar xale yi mu ñu dimbale si li nga xam ne euh, mooy ay indi insécurité si biir koñ bi waaw loolu daal ñu ngi siy ñaan yàlla yàlla pour dimbale ñu si daal ñu gën a am sécurité si gox bi ne si ñëpp jàpp rek mu gën a baax waaw loolu loolu maire waxoon na ma ne ma ba ma ko waxee affaire yi am tey bourse yi waxtaan waxtaan nañ ci moom am na bourse mu ma jotoon joxe amoon na mu jotoon octroyé si si commune bi man dew ma woon nag mais wax xamal na ma ko ne ma joxewoon na ay bourse ak yenn ng yi ba ma ko waxee bii dafa amul jot sax tey moo tax ñëwul mais vraiment rafetlu na ko loolu sax ba ne ma nag euh, dina si bay waaram dina si participer li mu mën a participer si élèves yi comme ñun tamit ni ñu si parti mën a participer si élèves yi dimbali leen euh, bu ñu xasee ba gis seen école ñu xool daal après non travail bi moom day continuer ak ñu ak élèves yi parce que ñun ak ñoom ñoo dëkk te suñuy doom lañu. nga dem ba boobu am taxawaay waaw mouvement boobu euh, sama benn xarit moo ko yor bu ñu daam Dame mu ngi dëkk fii euh, moom moo tax ma xam Cheikh Oumar si affaire bourse yi man ko ba nga ko waxee man la woo waxtaan ak man si loolu euh, ma ne ko bàyyi kon danaa fexe daal ñun si liggéeyee moom moo yor mouvement bi daal kooku dañ koy ñaanal yàlla mouvement bi jëm kanam parce que fu mu nekk nii affaire affaire Covid bi mu demee nii moo tax sax ñu xaw a toog tuuti mais vraiment ñu ngi xeex. pour mouvement mi jëm kanam pour mu gën a yëngatuwaat waaw merci beaucoup je vous remercie.